gisoon lii gisoon lii moo tax ma ne bu ñu jëm ci lii fi mu ñu dugal tey. non lii lii gisoo ko woon. ma ne yow tamit gis naa lu ko raw. non gisoo ko woon parce que. déglu rek report bu amul woon ak ni ñu reporté. kay ak ni citoyen yi ñàkkee ànd ci report bi lii yëpp du am. non non non bi moo indi lii yëpp. non non non dama la wax lu leer naññi. dama ne la ñun dañu réunion suñu parti ñu def analise bi génn constitution bi gis pouvoir yi Macky Sall am pour bloquer élection ñu analyser ko article par article ñu duñu ca xam kat on ne s'amuse avec la politique ñu xam ne kii comme exprimer wul volonté organiser élection yi te daf ko bugg a reporter dina am prétexte. ci lan ngay basé wu pour diir que Macky Sall voulait reporter wane na ko léegi kay amatul non non werante non mais avant nag loolu samay samay caxu bopp la non yéen non <laughs> ban diagnostic nga def mooy li la wax posé euh, qui t'ont bon. amené à à à, à, à déduire que Macky ah. Sall mi bëggul euh, organiser élection parce que lan euh, non xam nga euh, xam lépp wax lépp baax dama gis ay nit ñu seet si ma ne ma dañ ñu consulter pour reporter élection Ah bon Monsieur, des gens qui comptent, des qui gens compte, qui pèsent. Des gens qui comptent. Dans la politique, partout. Dans l'opposition, dans la coalition, il y a énormément de gens qui étaient d'accord avec Macky Sall pour reporter les élections. Et def ko define boo xam ne bii dañuy écarter l'opposition qui n'était pas partie au dialogue. Ah bon? Eh oui, eh attendez, attendez. faut faire très attention deuxièmement ñu xool constitution bi xam ne Macky Sall bu ko neexee bu conseil constitutionnel démissionné bu ko neexee du nommé blocage am bu ko neexee mu évoqué circonstance exceptionnelle c'est pas défini du dem bu ko neexee mu def en sorte que avec le contrôle du parrainage mu am un blocage boo xam ne bii ku ñu bëgg a éliminer dañ lay éliminer. comment. mais la preuve est là c'est pas besoin soo indee sa clé ñu ne la c'est pas praticable ay ay c'est pas c'est pas exploitable ay yenn détails yi ak yoo xam ne yi kenn mënu ko wax ak des gens qui échappent qui ont la double nationalité qui échappent tout ça c'est des circonstances qui font que c'était extrêmement grave ñun ñu ne lii les risques sont tellement élevés que ce qui risque d'arriver mooy dañuy yeewu suba ñu ne ñu reporter nañu élection yi de façon unilatérale mais je l'ai dit et quand je venais de de de du. mais mais mais ah, ñooñu non dama laaj. dama bëgg comprendre man maa ngi ci yow. ñooñu seet la yëgal la ne nga yëg ne ñoom dañoo bëgg ñu reporter l'élection bi lan mooy seen sensibilité politique. ah mais no c'est je sais pas. je de l'opposition. non non non attends du pouvoir. de toutes les façons. Euh, les façons. l'histoire est là te xam nga man damay bind bu bind jotee rek dinaa bind li ma la mën a wax un projet de recherche de euh, euh, reportu élection yi de façon unilatérale existe avant processus bi di démarrer réel bu yàgg man octobre laa wax ça fait quatre mois léegi bu ñu ñëwee et j'ai déglu rek j'ai dit que nous courons le risque d'un record d'un report unilatéral pour éviter ce report unilatéral faisons un report consensuel. bi ñu ñëwee seet la. lan nga leen tontu. yooyu du ma dugg si la. non non non mais si c'est important. sama réaction daal mooy. proposé naa pour contrecarrer ce projet j'ai proposé un report consensuel. kon kay bañoo kon kay yow kon kay yaag ñooñu sorewu leen. ba tey sorewuñu. ñoom dañoo sorewuleen. ñoom bëgg nañu report. am nañu ay raisons yu tax ñu bëgg report man bëgguma report waaye bëgguma report unilatéral yow bi nga bindee fii da nga ne la de da nga di le théoricien du report ma ne la je suis théoricien du report mais je ne suis pas un militant du report kenn mënul taxaw Sénégal ne seeti naa ko ne nañu reporter élection mais yow bi ñu la seetsee ba nga tontu leen est que ci loolu nga yem. déet tontu ku la wax tontu naa leen. non da ne. yow nee nga waxuma la ndax tontu naa leen de. ah da ma ne léegi bëgg nga bëggoon nga report mais yow da nga leen ne il faut un report consensuel. non non non non dëgg loolu ma la wax. dama ne la dama yëg man. ci ah. ay nit yu ma wax. ak ci samay gëstu. dama yëg ne dafa am projet de report unilatéral élection yi tontuwuma leen de. dama réagir sama tontu. c'est un tontu publique mooy ñu def report consensuel. donc man li may def du caaxaan ci ci bi nga waxee nañ def rapport consensuel. gis nga réaction yi. duggoo ci ay manœuvre ci nga ci nga. waaw xam nga nag ku ku manœuvre moom boo ko tàmmee ci ngay dëkk mais bu demee ba am yenn at yi jaar fi nga jaar man ku nekkoon soldat deuxième classe. politique ak manœuvre. non non non man du ma manœuvre man moom su fekkee. non je veux ba nga waxee ba nga tonton. est ce que ci nga yem ci nga pare ci mbir mi loolu laa lay ma wax man li fii laa la ko waxee fii lañ ko suulee fii lañ ko dëjee fii lañ ko saraxalee bi ma waxee li may wax ba pare ci laa ci pare man d'ailleurs dama dama amul droit sax sama parti ñoo ma ne pare ci sama parti ñoo ma ne parce que avant ñu koy wax dafa amoon werante suñu biir parti bi ñu tegee lépp sur la table suñu parti nañu léegi qu'est-ce qu'on fait ñu ne man c'est un couteau à double tranchant lii boo ko waxee gars yi dinañ dal sa kaw te bu ñu dalee sa kaw lu nekk dañ la ko yekk te dafay yàq suñu politique ma ne leen man dama am problème conscience morale lii ma yëg ak analyse bi ma def su ma ci noppee bu ëllëgee bu amee dinaa am dus dinaa am gàcce ñu ne ma kon wax ko mais benn condition lañ la posé boo ko waxee ba pare ñun bu ñu la investire comme candidat pare nga ci loolu la ñu def. waaw léegi loolu laay laaj. est-ce que est-ce que gis